الحمد لله الكريم سلما على استقالي bi li ko gën a sabab mooy dajale taskati xibaar yi ngir dox ak ñoom sant leen gërëm leen ndokki ci weeru tedd yi ndax suñu borom dafa dogal at mu nekk ñuy màggal màggal bi te waxtu bu nekk rek ñoom ñu ci am taxawaay boo xam ne taxawaay bu bu rafet la kon dañoo dem ba am ci cër cër boobu nag tey jii moom lañ leen woon def ndax ci biir bàggal bi xëy na dana xat xataay boo xam ne lañ ko bëgg nañ ko kon ngi leen sant ñu ngi leen gërëm di sant xawaay bi ñu dajee ba noppi nag tam ñu di ci profité ñu waxtaan naa la ci programme bi nga xamante ne bii ren bii andi nañ leen ko. ndax euh, magal gi ci toon nii euh, depuis ñeent ba juróomi at conférence bi ñu ciy def day nekk ay conférence yu am solo ren jii itam tëralewaat ko noonu mu am ay mu nekk innovation yoo xamante ne bii foog naa ne buñ ko déggee rek nit ñi dañu xam ne euh, bàyyi dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax conférence yi ci ci jiitu <clears throat> mooy dinañ waxtaane li nga xamante ne bii mooy ngëneel ñi nga xam ne moo nekk ci guddik leetu xadar ak dayo bi nga xam ne am na ko ci biir lislaam conférence boobu li ci ëppati solo mooy dañ ko tuddee njabootu Serigne Mor Fall Khary ak njabootu sëriñ Abdou Bousso te ñooñu bu ñu leen tuddee kenn ku nga xam ne fii ci dëkk bi ku nekk ci ñoom guddi gu mag ngay màggal guddi léegi xadar bi moo tax nag ren ñu waxtaan ak ñoom ndax lépp day lenn kon li gën a rafet mooy ñu gën ko bon ñetti comité d'organisation yi juboo ci nekk day am guddi goo xam ne dañuy ànd defandoo ko bu renee ñu defe ko fii ci kër soxna si bu déwénee ñu def ko bu ma nekk si moom ak xarit at ma gerte fàtte ñu def ma nekk si aar at ma dellusiwaat ñu ñu doon gis nga xam ne kon day mel ni gudd la boo xam ne dañ ko tàmm na ren jii ñetti comité d'organisation yi bokk ko at mu nekk ñu tànn benn barab ci ñetti kër yi defe ko fa ñëpp dem jàpp ci ñu àndandoo ko loolu bi ñu leen ko waxee ñu ngi leen sant aussi di leen gërëm ndax ni ñu ko dañ ko rafetlu. ànd ko ak ñun ñu fas ko yéene nekk loo xam ne mooy jéego bi njëkk ci jaxasoo bi nga xamante ne bii ñii Sëriñ Tuubaa féetale guddi gi ñu ci dëkk bi fas nañ yéene ànd gën a ngir ngir gën a boole seen bopp ngir gën a mën a dundal guddi am na ci geneen guddi goo xam ne dañ ci waxtaanee sëriñ bi ni mu nekkee xéewal ak ni mu nekk yërmande guddi googu itam dañ koo tuddee maam Cheikh Ibrahima naa ne bu ñu waxee weeru ñoom li nga xam ne ñu ngi ko ci def nga xam ne mën ne mboolem ñu dëkk lu ñoom ñu leen mu ci kër gi ak kër gi mel ni yëpp fenn fu ci nekk mën ngay togg di yóbbu dafa ay ndogu néew ji doole di dem ci kër yooyu di ko jëliwaat di ko yóbbu ba ci sañkani ba fa solo solo solo ñu di ko boole ak di tudd yàlla li ñu am lépp nag ñu koy joxaat Serigne Touba ci weer yi nga xam ne weeru Serigne Touba fonkoon kon jàpp naa ne lépp lu waay def ci biir weeru koor Cheikh Ibrahima am na ci ab cër cër nag mosuñ ñu leen koo ñàkk waaye dañ ko bëgg a ba duñ sëpp xam ne kat lii Cheikh Ibrahima Fall moo ko moom naka jëkk ab cëram la ñu nag njabootam ma tam waxtaane ko Serigne Touba mu nekk yërmande ak ñi nga xam ne noonu la nekk dina am boo xam ne moom euh, ci wàllu njàng lañ ko jagleel muy ne li nga xamante ne bii mooy njàngum diine mi naka la mën a nekkee saafara ci jàngoro yi nga xamante ne bii suñu njàngum réew mi am na ko ndax kenn ku ne xam ne njàng mi ci biir dafa tawat te gis nañ ni njàngum diine mi kat suñu borom mi ngi ñuy dimbali ba tawut ndax koo xam ne amul budget amul bourse amul dara te doo doggi mu geraw te ña fay génne ña ngay génn di faj ay jitte ak mooy yu néew a dem na koo xam ne am na lépp te munta def loo xamante ne bu am solo lu ñu luñ tëg bën wax ci nekk ay jafe-jafe nii dañ seex profité di jaale njabootu ñi nga xamante ne bi mooy ki génn àdduna bërki démb ci tolof tolof yi nga xam ne amoon na ndar di ko ñaanal yàlla te ñaan lu mel noonu gëj ko bañ amaat ci réew mi kon ñu ne njàngum diine moomu naka la mën a nekkee modèle naka lañ ci mën a sukkandikoo naka lañ ci mën a royee ba saafara jàngoro yi nga xamante ni bii njàng mi am na ko muy nag euh, jataay boo xam jataay bu yaatu lay doon ñu di ci ñu di ko séq ak ay borom xam-xam yu bari yoo xam ne fii ci dëkk bi la ñuy jóge ak ñoo xam ne ñu ngi jóge fu ne ci gox yi ci biir réew mi ndax ana lañ koy def ay projet ñu ci ñëw ay bonoo xam ay ay ay kàngam rek ñoo fi nar daje su boobaa aussi ñu waxtaane ko seet pexe ba dara génn ko loolu si dañ koy sawar ndax kenn ku ne gis na li nga xamante ne bii noonu la kii di xam ne jande mën a Cheikh moom buñu taxa daye bi nga xam ne jox na ko jox na ab gan man bëgg dem dem naa ko ànd ak mboolem njabootu euh, Daaru Xudoos ñoo ko ziyaare waaye dañu fa demee discours ba mu def la ci ëpp ci wàllu jàng la ko jënd àgg sax ci ne yéen de gis nañ ni yéen a ngi góorgóorlu ci njàng waaye nag man de bala maa am jàmm danaa leen dab te su ma leen dabee nag ànd yéen kon kooku xam nga ne jàng bi nekk na priorité ci moom loolu aussi moo tax foog naa ne lépp lu waay def rek fi nekk lépp ak jubloom foog naa ne lépp lu ci nit tàmbali barke ba jiitu na ndax ak ñaanam moo ci jiitu loolu moo tax itam ren jii ñu bëgg a profité ci loolu ngir waxtaane ko te jàng nekk loo xam ne nag jekk dañoo ñor dañu yitteel daan ci daan am na itam loo xam ne dinañ waxtaane ci jiit ci biir diine naka la war a nekk bu duggoo ñu tudde ko sëriñ moom gis loolu aussi foog naa ne jataay bu am solo ndax Cheikh Mouhamed Moustapha kenn ku ne gis na li nga xam ne noonu taxawoon ginnaaw Sëriñ Tuubaa ci waxtu yoo xam ne waxtu jafe jafe jafe jafe na mu nekkoon ak ay wajuram nekkoon ak ay kàngam yoo xam ne dañoo xam sëñ bi bi yar leen ñu fex jàll wante ak xereñam ak mat yoo xamante ne bii ñaanu sëriñ bi ak jëfi sëriñ bi jiitu ci moom ba tax mati noonu tax na ba ñoom ñëpp ñu jiite leen teg yoon wi ci euh, yoon woo xamante ne bii ba ndëgë ni mën naa ne ci lay fu dikk rek da ngay sof li nga xam ne moom bi si moom bàyyi kon euh, jikko yooyu ñu bëgg ko jàngat dellu siwaat ko ngir ñun ñëpp ñu mën cee roy am na ci guddi goo xam ne jigéen ñi lañ ko jagleel ñu muy li nga xamante ne bii moo di jigéen ban taxawaay da war a am ci biir diine kon loolu mooy conférence yi boo seetloo euh, am na ci guddi goo xam ne si soxna Mariam Kunta la ci tudd moom Serigne Touba ndax guddi googu mooy am dimanche bi nga xam ne moo jiitu bu nekk xagal bi at mu nekk dañ ko jël tuddee ko jenn doomu Serigne Touba di jigéen euh, ren soxna Mariam Kunta lañ ko tuddee moom itam parce que yéen a ànd ak ak njabootam kon daal ci gàttal loolu mooy conférence yi nga xamante ne bii bu soobee yàlla mooy waxtaan yi nga xam ne mooy jiitu léegi xajar bu yàggee ci bis ba nag te loolu mooy li ci ëpp solo ndax mooy li soxna daan def muy kaamil yi daan njàng ci bis bi lañ ko jëblu si wéyal ko ci ci bis boobu guddi gi itam fas ko yéenee dundal euh, ba bët set wecc ñu bañ a fàtte itam beneen bis bi nga xam ne sax xasida itam lañ ci lañ ci waxtaan yi loolu si bokk na ci euh, bokk ci programme bi dama ko dama dama ko tëboon kon ñu gis ne programme la boo xam ne programme bu yaatu la bu bu wuute boo xam ne jàpp naa ne xaw naa ay njariñ yu bare bari euh, la lamboo foog naa ne ku ko teewlu rek lu bari loo bëgg a xam soob yàlla jëf est-ce que mën nga dir sa niñ ci les c'est-à-dire proprement di sens bi mu am ak nan la ko soxna si daan dundale fii waaw xam nga day day guddi goo xam ne mooy guddi gi gën ci guddi alxuraan wàcc ci ñu wàcc ci al alxuraan wax ci Sëriñ Tuubaa way muy guddi yoo xam ne alxuraan ci waxoon nañu ne guddi bu gën junni weer junni weer bu nga xayma ëpp na juróom-ñett fukki at ak bu topp suñu borom baaxe mu nekk ci biir weeru soxna itam li mu sëriñ Tuubaa yitteel ko liggéey addunaam yëpp liggéey suñu itam lu ko sëriñ bu ñu demee nag ba war a tànn bis boo xam ne da ko gis ci liggéeyal way juróom woowu mu ne kat mënumaa am lu gën guddi ci al mooy guddi alxuraan ak Sëriñ Tuubaa alxuraan mooy lu mu saw fi loolu eh, wante itam ñoom bi ngi def lenn loo xam ne defuñ ko ci ndigal loolu moo taxoon mu laajoon ci ndigal magam bi cadd ja Sëriñ Fallilu mu joxoon ko ci ndigal dogul ko ci ba tax barke ba wàcc ci ba toj ba ndëgëni dem na sax ba jaaxal njaboot bi ci ab dayoo ak ci ni mu toll ak ci ni ci nit saware ak liñ ci ubbi ko te lépp xam nañ ne ñaan googu Sëriñ Fallu ñaanoon moo ko moo ko sagal kon guddi googu mooy li ci soxla la ñu boo bokk ko nag ak mboolem jullit yëngutoon rek ci ñun war ko bokk ndax àggoon na ci mboolem jullit si biir réew mi ñëpp way jur lañ ko jàpp su bis bi accès ñoom ñëpp dañuy dikk ànd ko ak moom ndax bis bi bisub lislaam la kon kenn ku nekk mënoon nga ko defee si wante jox ko cër ak itam xam yitte ak aajo ji nga xam ne joxe na kenn ku nekk di bàyyi ko fu ne di ñëw di def ak moom daayira itam noonu la meloon bu fenn fu nekk ay daayira di ko jóge ba nëgën yi moom itam kenn xamul lu ñu toll weeru ko rëpp dañuy dikk di jëpp lu lépp rek di xeeñtu lu baax ak kon guddi googu mooy guddi lenn mu nekk le 7 juin ñu ngi ci woo mboolem jullit yi di leen xamale nga def soxna si fa soxna si tegoon tànkam dafa leen teg seen tànk parce que yéen am na fa doon wax suñu doxalin ne ko dee lu baax baax na fu nekk. waaye tamit sakk na ne fii ci dëkk bi kon loolu foog naa ne defee ko Touba foog naa mooy li nga xamante ni bii mooy li ëpp solo ci defee ko feneen guddi Touba te ci waajal guddi gi itam loolu aussi di nekk loo xamante ni bii lu rëy la dañuy bale dëkk bi bu ko dañuy bale kër gi dëkk bi la ñuy bale loolu aussi dañuy mbooleem daayira yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu set setal mboolem kuréel yi association yi ñoom ñëpp la ñuy boole dajale ñu ànd ba bawo fii ci kër gi lang dëkk bépp di bale jëmale ko ba ca HLM mu ñëw foofu suñu moom loolu aussi su magal gi desee juróomi fan ci ñu koy def ñu tolloo le le 3 juin incha allah loolu aussi ñoom ñu ngi ciy daje foog naa ñu koy seet ñu ngi toog ci sama wet daje ci ay yoon dinañ ci ay avant première dinañ ci dinañ ci dinañ ci woote bu soobee yàlla moom ñëpp lañ ci ñëpp lañ ci lañ ko lañ ko àndal ak daayira yi ak fu ñu mën a nekk rek daanaka mën naa ne képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci mbale màggal bu Tuubaa mbale mii di nga ci yënguwaat ndax itam dëkk bi foog naa ne euh, buy te bu ñuy tepp bu ñuy séntu ay gan war nañoo fexe ba xar kanam bi soppiku ci ci anam googu kon daal loolu xam ne mooy nga xamante ne bii. xamees na ko bari hmm. man bi ma ko mujj xam ëppoon na douze mille kaamil yàgg na boo jëlee rek ku mel ne suñu wajur baax bi di sëñ Basiiru moom sëñ Falilu ak kuréel gi mu àndal li ñuy jàng ci kaamil ëpp na dix mille te fépp foo xam ne daa dee kaamil nekk na fa rek tey jii ma ngi ñu ngi waajal bis euh, te loolu soxna si moo ko daan def te soxna si bu ko daan def li leen daan jox da ko daan bay ci loxoom ak toolam lay bay ba mu ñor mu jaay gerte ga denc xaalis weeru koor teru bu génn xaalis boobu def ko ci ay enveloppe séddale ko daare kaamil musu nangu dëru kenn kenn ndax foog ngoo xam ne fonkoon na ko daare kaamil yi ak foog ngoo xam ne fonkoon ba nëgën itam mu ngi soxna baali ak suñu max noonu la fépp foo xam ne soxna daana fi yóbbu ab leetar ak ay daare kaamil yu bees lu nekk kenn ku nekk itam la ko soxna si daan def teraanga yëpp def danañ ko fa def te su bis bi itam kenn ku ci nekk danañ togg ay ndogu wala ñu rey ay nag yónnee leen ko mu doon seen ndog fii ba Porokhane fii ba Ndakaaru fii ba Daaru Muxti du bàyyi fenn ci Sénégal ndax bésub alxuraan te loolu mooy li nga xam ne mooy li ci solo te mooy li nga xam ne mooy li gën a lu ñor CRD bi dañu def réunion d'évaluation bi ñu demee ba la quatre donc bu ñu ci jógee léegi ma tugg ma tugg semaine actuellement ñu ngi ñu ngi déroulé tout programme waaye bu ñu fi yàlla bàyyi ba la quatre nag ba maa ngi des ñeenti fan te la ñu nag soo ko mën a toog évaluer xool ba xam lan lañ dox def lan moo des lu ñu fi mën a xaj xajal ci digg ci fan yi nga xam ne moo fi des bu ñu nee ba ci màggal gi nag dinañu xool est-ce que ay am na satisfaction boo xam ne dinañ ko décerner xam ne ñooy seqal nañ liggéey bi wala est-ce que am na ay manquement mais fi mu toll nii loolu mënaguñ cee wax ndax ñun soo commencé liggéey ñu ngi déroulé kon nañ bàyyi ñu liggéey ba ca kanam fépp fukki fan ñu bokk koo waxtaan nag